partenaires yi nga xamante ne moom ñoo ñuy accompagner saa su ne ci petit déj yu original comme ni ngeen ko gisee am saveur yu bari neex bu bëgg dee mën a yokk énergie waaye tamit euh, meew alib comme ni ko gisee ci écran bi moom tamit di ñu accompagner saa su ne muy ay produits yu am solo yoo xamante ne saa soo ko utiliser rek di nga xam donc euh, seen euh, importance ci lépp li nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo ci suñu wàllu lekk Mamadou Diaby Gassama gis-gis sa invité di Oustaz Assane Diouf jërëjëf ci euh, doxteel bi yaa ngi ñuy wax ne tey da ngay wax euh, bienfait de l'islam waaw loolu uh-huh. la Fatou comme li nga wax rek tey moom ñu ngi dalal suñu directeur des programmes mais aussi nekk le grand coordonnateur ki nga xamante ne bépp émission ba nga xamante ne mi ngi daw fii mi ngi taxaw ci coordination bi euh, vraiment man samay rubrique yëpp invité yëpp moom moo koy coordonné mm-hmm. képp ki fi ñëw rek dama ko ci waaw mooy coordonné vraiment sonal nañ ko trop bi xëy nit sujet bi suba nag ñu waxtaanee lan ñu def lan ah invité bi nag boo koy disponible na pour wuyu yi. <laughs> mooy ko boo ko boobu jël. fees na fees na fees ko <laughs> koy. <laughs> macha allah. Euh, euh, Oustaz Assane tey nag euh, ñu war a waxtaanee ci les bienfaits de la religion musulmane. Mm-hmm. dans la vie humaine maanaam jeexital bu mucc ay bi ba nga xamante ne diine gi dana ko def ci dunduk doomu aadama mm. eh, tey jii ñun ñëpp ñu nekk ay jullit ñun ñu fi toog ak mun naa ne aussi lu ci gën a bëri ci ñi nga xamante ne ay sénégalais duñu suivre ñu nag ñoom ñoom ñoo bokk eh, gëm-gëm bokk pas-pas eh, tey jii nii ñu gis ne diine buñ ko waxee rek day indi dana tàggat nit ki ba du def yenn yi est-ce que mun nañ mun nga ñëw ci loolu Euh, jërëjëf euh, Mamou maa ngi lay euh, sant ci sujet bi. Mm. di nuyuwaat ñi ci palaato bi yëpp Fatou ak ganam yi. Mm-hmm. Serigne ak Daouda. Mm-hmm. nuyu ñu nekk ci technique bi. Penda Diallo gi ak Isaac ak ñi leen jàppale Serigne ak yooyu yëpp. Mm-hmm. ñu nuyu itam ñi ñuy toppee ci biir réew mi ak ci bitim réew xam nga diine. dafa mënul ñàkk ci. doomu aadama ndax ki bind doomu aadama dafa bëggoon ins euh, dafa def doomu aadama mu nekk instrument boo xam ne pour jaamu ko la pour jaamu ko rek moo tax mu bind ko doomu aadama bu naree màmm ci jëm ci leneen lu dul loolu rek day am problème moo tax ngëm-ngëm mënul ñàkk ci doomu aadama waaw benn vide la boo xam ne benn place la boo xam ne mu ngi ci biiram il faut mu remplir ko bu ko remplir rek euh, li mu ko war leneen du dina fa dugg mais mënul ñàkk euh, nit ki gëm beneen force boo xam ne. moo ko ëpp doole te moom du ko mën a gis. loolu doomu aadama dañu ko dañu ko dañu ko mooñee ci loolu. gëm-gëm boobu nag dina tax tey moom dina moytu lu bëri aussi. gëm-gëm boobu dina tax mu mën a moytu lu bëri. gëm-gëm boobu sax moo tax diine jóg. mën nga wax ne diine dafa ñëw pour ay mbir. bokk na ci mbir yooyu mooy wutal doomu aadama yoon wu muy gëmee gëm ci boppam ñëw pour protéger ngëm ci nit mm-hmm. Mm-hmm. diine lool euh, bokk na ci li ko tax a la ca topp diine ñëw na pour protéger deru nit ki mm-hmm. deru nit ba bu ñu euh, ñu bañ koo yàq bañ a teg dara ci euh, deram ak yooyu loolu nag lu xew la léegi bu ñu xëyee rek ñu ngi ci teg deru nit loo xam ne baaxul te fekk diine dafa ñëwoon pour protéger wàllu wàllu woowu diine itam dafa euh, ñëw pour protéger njurte gi maanaam ni ñuy yokk organiser ko ba nga xam ne nit kii dina wax ne kii mooy woy juróom kii mooy jarbaatam kii mooy yooyu yëpp daf ko organiser mm-hmm. pour loolu itam mën a euh, tegu fi mu war a tegu mm-hmm. euh, diine itam dafa ñëw pour protéger xelu nit ki xel mi mm-hmm. ba nga xam ne boo naanoon loo xam ne waroo ko naan ba nga tàggoog sa sago daf la koy tere bu la ko fekkee itam daf lay teg ci euh, daf lay def ay daan. Mm-hmm. ndax xel mi dañ ko war a protéger. Mm-hmm. diine dafa ñëw itam pour protéger alal am amu nit ki. nit ki am na droit ne maa moom lii keneen moom moom lële. Mm-hmm. boo naree ñëw jël li mu moom am na droit pour. wax na ne déedéet yoon itam. Euh, day nekk waru garam mu protéger kooku. Mm-hmm. ba nga xam ne li mu moom. ñu bàyyi ko mu mu jëfandikoo ko. Mm-hmm. protéger boobu tamit gis nañ ne dana tax tey jii nit ki bu bëggee def corruption wala bëgg ci dox sax mais bu xalaatee ni gëm-gëm ba nga xamante ni am na ko rek dana reculer ba du def naka su dul noonu. exactement ndax projet de société la te pour dëggalal li nga wax noonu par exemple euh, da ngay gis benn oto. buy daw ci tali bi 2 heures mu ñëw feu oto nekku fi policier nekku fi moom nan lay nan lan la war a def dafa war a taxaw wala dafa war a dem policier nekku fi. Mm-hmm. oto nekku fi. ñu bari ci nii dañu naan vif. ñu ah oto nekk fi policier nekku fi. bu ne Sénégal la fii de. <laughs> bu dee Sénégal waaw noonu la ñuy doxalee bu dee Sénégal noonu la ñuy doxalee. foofu mm-hmm. dara nekkul moom ñu dem si ñor. voilà <laughs> waaw waaye. léegi ñaata policier lañu war a mën a am. Uh-huh. pour. foo nekk rek policier fekk la fa. Mhm. loolu ngëm-ngëm moo koy remplacer ci nit ki. Mhm. mu am auto contrôle boo xam ne mu ngi ci sa biir muy mhm. gëm. nga xam ne lii man maa ngi nii taxaw sa taxaw bi ma taxaw pour foo bi vert. Euh, ci jaamu yàlla la bokk. te fii oustaz bi mën nañ koo bañ a def ñu ñu ne kenn gis ñu dem mais caméra yàlla ngi fi mais bu dee fële. Euh, Europe boo ko defee caméra yaa ngi fi boo ko defee mën nañ la détecté nañ la bu yàgg. voilà après sanction mën na la ñoo bi nga tuddee caméra. waaw léegi nag euh, caméra bi gën a. nga xam ne tey ëpp doole mm. dafay. te am benn défaillance mais lépp te daf la koy tegal mu wóor la ne wax dëgg kii man la. Mm. boobu nag mooy caméra bi nga xam ne mooy ngëm bi ñuy waxtaanee tey mm. il faut nit ki xam ne. caméra wu yàlla du ko ci moom. boo ko xamee rek. Mm-hmm. nga nga nga noppalu. te bu fekkonte ne doomu aadama yi yàlla bind ak yi muy bind ak yi mu bindoon yëpp. Mm-hmm. dañu toog di la xool. Mm-hmm. yàlla toog fële di la xool. bi gën bët bi gën a danger mooy bu yàlla bi waaw ñëpp di la gis ak yàlla di la gis mhm. boo ci war a gën a moytu mooy bu yàlla bi ndax euh, mhm. euh, la muy jur mhm. kon nit ki dafay xam ne toujours mu ngi ci kanamu euh, caméra yooyu loolu itam dafay tax ba nit ki nekk membre positif ci askan wi voilà yow yaa ngi nii nekk maçon bu la neexoon nga jaxase suuf su ëpp nga xam ne ciment bi. Mhm. di nga fexe ba nga rawale ñaari saaku. tailleur bi itam dina fexe ba. ñambaas benn kii boo xam ne bokku ca mu ñëw ko weñ boo xam ne moo gën a mooy cher. Mhm. xam nga kenn gisu ko. Mhm. kenn bi itam la kees ya nekk ca biir yëpp mu def defal la yoo xam ne mhm. utilisé woon nañ ko ba pare. mu rafetal ko mu rafet. loolu nit ki dem réparé oto waaw sunguf poobar <laughs> poudre poobar ba pare dem mélangé ko leneen. <laughs> waaw sunguf poobar loo xam ne moo gën a yomb bu ñu nga ñëw ñu ne lii lan la nga ne sunguf. <laughs> fenn nga ba pare jaay kilo lu amul. li bi def ci yokku ci ndox. yokku ci ndox fi fi gën a garaaw sax mooy da gis koo xam ne dafa ne dama bëgg a jënd lem. mais boo ñëwee ci lem bi da koy ne mbaa lem pire la est-ce que lem pire lem bu dul pire est-ce que am na. Mm. mais foog nga laaj ko ne mbaa lem pire la. Mm. moom doomu aadama mooy ne rek ñun sore nañu diine lool ci ni ñu ko ni ñu ko ni ñu ko waroon waroon waroon waroon amee. Mm. xam nga nit ki pour mu euh, dund diine googu. Mm-hmm. dafa war a xam ne am na ñaari caméraman yu mu àndal comme mm-hmm. caméra yi ñu doon wax. Mm-hmm. am na ñaari caméraman yu mu doon indi mooy raqib ak atid kii day mhm. bind yu bon yi kii di bind yu baax yi mhm. kii bind yu bon yi sax du du kii enregistré yu bon yi mhm. du ko teel enregistré mu mel ni caméra ci angle yëpp rek voilà angle waaw comme comme robot yi ñu yi ñu jàkkaarloo nii angle bii mu la voilà boo defee lu baax rek ba mooy <laughs> détecté <laughs> automatiquement automatique lay détecté wu <laughs> nga lay lay déclenché wu mu mu lu bon boo defee lu baax. Mm. bële automatiquement lay déclenché wu mu enregistré lu lu lu lu baax. lu baax mm. mais bu bi enregistré lu bon. Mm-hmm. bu enregistré ba pare dafa dañ koy mën a effacer daal. ah bu bon bi mën nañ ko effacer. mën nañ ko effacer. ci boo ca taxawee. Ah. ci ne. maanaam euh, boo defoon lu bon. waaw nga tuub. ah, ah tuub bi mu wala tuub wala astafurlah. waaw mm-hmm. mu dal di arrière cassette bi. Mm. effacer ko léeg-léeg sax. yàlla kontaan ci tuub bi ba mu ne la yooyu nga defoon lu bon sax soppi naa ko léegi ma sotti ko fa lu baax lu baax <laughs> waaw waaye bul nekk tukulóor nga ne ah bu a bari déedéet <laughs> yëpp hmm. waaw ba dal naa say aatihim xasanaat hmm. yooyu yëpp ki xam ne itam mhm. du nit du du du du créature mhm. la boo xam ne bu responsable maanaam lu hmm. bon li lu lu baax la mais lu baax moom fu mu taxaw lañ noté moom def nañ ko ba pare lu baax li sax lu bon li moo mën a transformé wu nekk not bu baax ñoo fekk si lu lu voilà même lu baax loolu sax mën na nekk être vivant boo xam ne dafay dafay dafay multiplier di dem léegi nag nit dina def jëf-jëf boo xamante ne nee nañ hmm. mën na jël bàkkaaram hmm. yow ñoo sotti la yow nga tooñ ko léegi moom moom basam sottil la mu ñëw jox la waa bàkkaara bàkkaaram bi mu amoon wala moom bàkkaar bi mu am yow bi hmm. nga amoon nga ñëw sotti ko ko yow mi ko tooñ waaw waaw parce que bu bés penca dañuy ñëw ñu ne ah yow ñaata tuyaay ba nga am xam nga yëf yi du yëpp mbiru euh, jar na hmm. mbiru mbiru mbiru. qualité mbiru qualité la ni ñu ko mën a waxee. aar ma firi ko. boo amoon euh, téeméeri tuyaaba ak juróom fukki bakkaar. Hmm. àjjana nga jëm. téeméer. tuyaaba nga am ko. waaye juróom fukki bakkaar nga am xam nga àjjana nga jëm. xam nga hmm. moyen. waaye boo amoon. Euh, juróom fukki tuyaaba. Mm-hmm. ak euh, ñeent fukki euh, lu bon. Mm-hmm. yow itam àjjana nga jëm. Mm-hmm. mais boo amoon junniy tuyaaba. ak ñaari junniy bakkaar. yow safara nga jëm. maanaam quantité bi compté wul mais quantité bi mu ngi par rapport ak. li nga def ci ci lu bon boo amoon benn tuyaaba sax. waaw boo amoon ñaari tuyaaba sax. te am benn bakkaar na nga jëm. Mm-hmm. Mm-hmm. voilà kon nit ki il faut moo xamee ko noonu léegi nag li nga wax noonu. Mm-hmm. pour ne dinay ñëw euh, ñu ne ah yow tooñoon nga daa xawee sutura nit ki da nga koy boo jëwee nit ki da nga koy boo tooñee nit ki da nga koy foofu amul matériel. amul xaar ma jox la or bi na benn problème fi amoon ku ñu ne génn ci biti. mais ñu ne kaka génne. waaw kooku ci boppam moo nar a gàddu bàkkaaru kooku ñooñu ñooñu euh, dibir ko ci net. kooku nga xam ne moo ko tasaare. waaw bàkkaar ba bu euh, bàkkaaru tasaare ba moom moo koy am. moo koy am mm. tasaare ba. moom moo koy am kon mm. yëf yi dafay wàlle léeg-léeg mu am mu am. ci mm. nekk. moo tax partage xaaral ma xaaral ma envoyé la ko bi bi ñuy def nii. yenn saa yi léegi mu jural ñu bàkkaar. <laughs> Eh, gis nga leen diw toj na fi xaar ma à part envoyé la ko. <laughs> nga dem partagé ah, yow mi partagé yaa ngi am sa wàll. Oh, eh, waaw dégg nga li xew ñu ne déedéet <laughs> waaw xaar ma partagé la ko. Ah. te mosu daanaka doo gis ñuy ah. partagé lu baax. kon sa kon réseaux sociaux yi dañu indi ay bàkkaar yu bari de. waaw bëree bari li ciy am yëpp nit ñi di ci commenté que wax ak partagé bari na de. te nit ñi ñu gën a sawar ci partagé loo xam ne baaxul. baaxul mais lu baax ne xalifa bi neen nangam xaar ma partagé ko. moom duñ partage lu baax lu bon la ñuy loolu euh, léegi ñu gis ni aussi ci euh, diine gi dana tax ñi euh, dund ci anam bu dé ñi ci dékkin bu rafet quoi dana tax te yow di nga respecté keneen ki doo ngañ ñi donte sax ci beneen diine la bokk di nga ko respecté jox ko cëram mais aussi tey boo amee bon ba nga xamante ne yéenay moo lay liggéeyal sa biir am na euh, cër ba nga xam te di nga ko jox maanaam respect ba nga xam te ne tey diine mën na ko indi ci biir société bi. wala ci beneen terme mooy ne diine daf lay def nga nekk nit. Uh-huh. dafay dafay dafay dafay protéger sa nit bu sa nit gu jëkk ga. kullu mawludin yuladu ala fitra. Hmm. nit ku nekk dafa saint woon dafa vierge woon. ci ba muy judd. Euh, laqad na al-insaana itam fi ahsani taqwim nit ki ci mu gën a rafetee la ko yàlla bindee. pour mu protéger loolu nag. Euh, mooy mu mu mu am comportement yu baax. ci digganteem ak boppam ci digganteem ak moroomam ci digganteem ak boroomam. loolu nga wax noonu itam dafay dugg sa diggante ak sa moroom. maanaam euh, bul yaakaar ne ki mu bokkal diine dama ko war a noonoo dama ko war a bañ. imagine nga ñëw ne amiin mbokk jul ji nekk ci Sénégal yépp yàlla na yàlla defal jàmm defal leen aaral leen nangam ak nangam ak nangam waa yow yàlla bu nangoo sa ñaan boobu hmm. te fekk euh, jullit boobu mu ngi sasoo kër ak keneen koo xam ne du jullit hmm. kër googu guy lakk est-ce que dina yem ci kër <laughs> ci ci kiyam mm-hmm. wala kooku bu ñàkkee est-ce que dinañ wax ne dëkk bi am na ak hmm. yooyu. wala yàlla yebal inondation mu ñëw ci këram inondation est foofu rek lay lay këram rek la mën a léegi hmm. dafa am loo xam ne penc mi la ñun ñëpp ñoo ko bokk hmm. dundin wi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xanaa xamoo ne xanaa xamoo ne bi mu ñëwee ma Madina fekk na fa ay juif yoo xam ne yeneen diine la waxu ne toog toog dem leen nangam ak nangam nangam déedéet même sax am na teen boo xam ne Ousmane mu ngi ko jëndee ci juif yooyu. Uh-huh. mu ngi ko jëndee ci ñoom. Mm-hmm. ñoom encore ñoo yoroon commerce ba juif yi ñoo yoroon commerce ba ci jamono yonte ba mu nekk Madina. Mm-hmm. jullit ñi di dem foofu di jaay di jënd di leen jox ñuy weccoo. Mm-hmm. loolu parce que loolu ci cadre. ci cadre jëflante entre deux hommes la amul amul différence. voilà. ci cadre boobu nag. Mhm. Euh, ki dul jullit ku ku ku am comportement bu baax boobu mooy moo lay gënal. Mhm. Euh, jullit boo xam ne amul comportement bu baax ci côté boobu. ci wàllu sa jullit laa man maa gën kii nag nekkul jullit comme man. te kooku man laa mën a gën sax. de de mbiru gën. Mm. mbiru gën nit du ko teel jullit sax du ko du ko du ko du ko teel a wax. même ñoom dañuy dañuy mm. minimiser daal. ko keneen ku waaye xejoo dafa am lu ñuy tuddee xejoo moo ca war. Mm. xejoo bi mooy lan. mooy da ngay ne diine bii ma gëm nii. man dama dama daf ma convaincre moo tax ma gëm ko. Mm. waaye nekkuma ci àddina bi man kenn am na keneen ku beneen leneen convaincre. Mm. ba mu gëm loolu. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. est-ce que da ngay euh, fexe ba wekk xolam. ba dugal ca leneen du du sa du sa rôle. Mm-hmm. voilà da nga koy bàyyi ci conviction boobu. mu yow nga yore sa conviction ci ci wàllu jëflante mm-hmm. bu ko defee loolu mm-hmm. noonu la la l'islam kii l'islam ñoo ci dugal lu ci bokkul rek li mm-hmm. waaye fekkonte ne ni mu meloon rek noonu la noonu lañ ko bàyyi dund gi ak ak naroon a neex on allait vivre dans l'harmonie comme lu ñu koy waxee ci tubaab euh, tey jii aussi ñi gis ne euh, bi xëy din lii di jamono ji stress yi bëri coono yi nit yi jaaxle tey diine dina tax ba nit tey benn instant ci dundam sax du amati envie dund day dem àdduna da koy da koy bëgg sax xaru amaanatee diine ji mën na tax ba moom mi du dem xaru ji. oui c'est une question maanaam euh, dañu ne am na benn réew. boo xam ne am na fa benn xeet boo xam ne. ñoom bu ñuy dox dañuy yóbbaale seen sunguf sungufu poison. Mm-hmm. waaw bu ñu demee ba ñu wax leen lu leen naqari wala mu am jàqati kii rek ñu dal di ko. màcc rek dal di dee. Oh. xam nga boo demee ba sës ba jàpp ne amatuma solution rek fekk ngëm moo fa nekkul waaye lu la dal ak lu mu mënti nekk ak lu mu mënti tool lu mu mënti mel boo gëmee ne am na force divine boo xam ne mooy yàlla rek dangay ngay dal di féex dangay ngay dal di feex kon gëm boobu comme ni nga ko waxee dafa lay créer benn force intérieure boo xam ne moo lay génnee ci yu bari yoo xam ne bu dul woon ngëm googu Euh, dina dina kii mm. parce que moo tax euh, xaru. Mm-hmm. nit du xaru ci jamono ja muy xaru te fekk jullit la. Mm-hmm. il faut nga rocc sa ngëm door a mën a xaru. Mm-hmm. sinon bu dul woon loolu da ngay xam ne yàlla kat yàllaa ngi fi kon balaa may xaru xaaral ma xaar yàlla. loolu euh, mooy comportement wu jullit kon dina la protéger ci loolu mm-hmm. mais dina la protéger ci lu bare bare bare loo mm-hmm. xam ne day dem ba euh, mm-hmm. wàllu nit ki nga gàtt ci parce que am na témoignage koo xamante ne da doon julli dem jàkka dem yëpp mais dafa ñëw ñu fekk ko mu pendre boppam mu xaru mm. est-ce que kooku def na ko tey na ko wala dafa am derrière moom ay mystique affaire yu traditionnel peut-être yu nekk ci gannaawam ba tax muy def acte yooyu tamit oui yenn saa yi euh, cause bi ki ko def rek moo koy mën a expliquer xam ko mën na am dafa xuloo nag diw démb mën na am dafa calculer ni waa avenir bi fan laa ci jëm ak yu mel noonu ba mu gis solution euh, boobu peut-être xëy na gis na ne dina dina dina julli mais gis nga julli boobu mu nga wax ne julli na ko mm. bu fekkonte ne julli ba def na def na ci moom lu mu ci war a def maanaam bu fekkonte ni julli ga Euh, defe nañ ko noo xam ne julli piir la. Mhm. bu boobaa sax xaru du ci topp. bu fekkee dafa nag ba tax mu def euh, jëf boobu tamit. maanaam ko waaw teyu ko mu doon jëmtale comme parfois ñi ne diw xaroon dañu bañ ko teel a jugé amaana am na. li ci rax daal ba moom mi du àndut ak mm. sagoom peut-être am na li ko li ko euh, possédé dugg ci moom mu daal esprit boobu nga wax ak kii la cay nekk ngant daal xëy na àndul ak xelam loolu mën nañ ko kii mais yeneen esprit yu mel noonu ak nangam ak nangam gis na ne ah jaaxle naa ci dund beeg yooyu. duñ ko considérer loolu moom. Euh, yonent bi neen képp ku xaru. bu bés pencaa da ngay continuer ci na ngay xaroo. waaw bu fekkente ne tarat daamin jabal la da ngay tarat di ci ci montagne rek bu fekkente ne da nga tëbee ci montagne. loolu da ngay continuer ci safara di tëbee ci montagne bi noonu. ba faw mhm. bu fekkente ne noo da jam sa bopp ba faw. noonu nga ko kii moo moo tax dafa grave. léegi te hmm. pour nit ki mu féex aussi moom ci ci ci lu mu lu mu wax a def pour mun a féex ci côté diine lu mu war def pour féex moom ki nga xamante ne dafa nekk ci angoisse jaaxle. très bien loolu kooku dafa war a xam ne lu am yàlla. lu am yàlla moo koy noppal ci lu baree bare. Hmm. maa ngi ni soxla na ñaar dërëm awma ko waaye yàlla am na ko. voilà yàlla am na ko moom laa koy ñaan. sama ñàkk bii nekkul mm-hmm. bakkaar boo xam ne euh, war na tax may may may mooy tere nelaw yàllaa ko mm-hmm. programme noonu ba pare na ngay sabablu mm-hmm. day du wax ne dangay ngay gëm loolu la nga toog déedéet da ngay sabablu jàkkaarloog problème yi au lieu nga yenn problème yi mu lay diisal loolu mooy logique gu diine te danga gis ñi nga xam te ne bu nekkee ci problème seen jaamu yàlla si lay gën a yokk aussi wér bu ñuy wérdu dañuy gën a yokk seen wérdu gën a yokk naafilay di julli ci waxtu kon loolu yëpp mën na aar nit ki ce sont les bienfaits de la <laughs> religion. waaw ñoom bu ñu amee problème de la gën a mën a yokk boobu. ah, ah ba dañuy yokk. waaw ñu ne li waa doomam dafa feebaroon. Hmm. Hmm. feebar bu metti lool. mu dal di ñaan yàlla ni ko yàlla. Hmm. billaay boo ko bu tanee. moom ci daara jëlaa koy dugal incha allah mu jàng alquran mokkal ko amiin yàlla ko yàlla def rek mu tane. Uh-huh. léegi mu kii muy laaj ndax école kañ lay ubbi. <laughs> ñu ne ko ah yow fële nga waxoon kat mu ne dama ko doon kii rek. dama doon nax yaa doon baax rek pour. <laughs> feebar bi laa bëggoon mu tali. feebar bi laa bëggoon mu tali pour wax la rek ne. Mm-hmm. pour wax la rek ne en général. Euh, ni ñuy gëmee ni ñuy gëmee yenn saay mooy des maanaam suñu euh, ni ñuy ni ñuy ni mm-hmm. li ñuy euh, jàppale mooy diine léeg ñu. diisal ko lool ci benn ko te fekk dafa war a oyof léeg ñu oyofal ko ci benn côté. te fekk dafa war a mm-hmm. diis. Mm-hmm. Euh, nit mm-hmm. euh, nit ki daal waaw. moo ne moom nu laa bëggoon a wax sax ne kon ñun ñu ci bëri bokk conception bi ñu am ci diine ndeke du noonu ñun gars yi dañuy jàpp ne diine moom julli woor seulement dugg si jàkk ji génnaat. loolu dëkk kon dépassé na loolu lu yàgg lu sori sax. projet de société la. mooy li nga junjee loolu am na solo maanaam. nit ñi dañuy jaawatle diggante ponki diine ak diine. Hmm. yee ponk yi la. waaw hmm. mais xam nga ponk mooy lan. Hmm. mooy pilier maanaam bâtiment bi ñu nekk nii. dafa am ay pilier. mais bu ñu bu ñu dindi woon lépp ba mu desul desul dara lu pilier yi rek bu boobaa bu tawee dañuy tawte. bu ngelawee dañuy kii bu boobaa du am fenêtre du am dara. loolu pilier yi la mu nga xam ne moo ko téye. loolu du diine ci boppam mais daf cee bokk ay piliers yu ko téye la. mais pilier bu dëgëree dafa am lu dëgër loo xam ne moom la téye yooyu nag foofu la projet de société bi duggee léegi nag. Maadu mooy fondement bi. waaw moo organiser cité bi moo organiser dund bi moo organiser kër yi hmm. moo organiser mbedd mi. yooyu loolu mooy mooy mooy diine. Hmm. te oustaz sax hmm. euh, am na sànq fu ngeen duggoon maa ngi jégalu sax. muy man dama koy joxe toujours ci Ikrama ak la xam nga ikrama abu jahlin moo ko jur mm-hmm. mais amul fenn fenn fenn foo ma a dégg ikrama wax jéggi abu jahlin pourquoi parce que kay yéeféer la moom jullit la masta am maanaam yar bi yar bi mu doon wax noonu nga xam ne xajoo bi xajoo bi mm-hmm. xool ikrama kii kii nekk lii kii nekk lii mais teewul yenent bi ci yaram fexe na ba ku ci nekk da am respect ci sa morom mm-hmm. ram la papaam moo nekkoon abu sufiyaan mais xoolal kenn mësul dégg ram la jéggi jéggi wax ñi mu bokkulul pas-pas lu mm-hmm. ñaaw mësta am donc kon yooyu eh, xikma boobu tamit lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu war a jàngee ci lislaam la exactement te ku nekk ah. mën na ko pratiquer ah, par exemple boo amoon sa junni ah. boo xam ne da ko bëgg a dégg ku wóor koo xam ne boo ko dénkee dina la ko delloo suba mm-hmm. boo gisee ku dul jullit te mu mu mën a def loolu ak ku dul jullit boo xam ne moom boo koy jox rek mu koy lekk bu boobaa kan nga koy jox Hmm. donc kële mu denceel la ko. ba hmm. ba bu subaa mu jox la ko. dëgg la yëf yëfu nit la d'abord balaa hmm. muy nekk yëfu la. dëgg la am na solo maamu. waaw loolu la waxtu bi nee na jot na. Euh, di leen remercier yéen ñëpp ah, ci participation bi vraiment. Euh, di aussi di remercier bu baax a baax Oustaz Assane moom mu amu fayam xanaa di ko nekk dénk naa ko suñu borom rek. ndaxte macha allah. waaw kenn amul fayam moom daal. <laughs> aussi di di nuyu sama tata Batouran ah, ak aussi sama copine de cœur. Nama Ndiaye waaw. <laughs> d'accord ñu nuyu bu mhm. baax. di nuyu bu baax di la jaajëfal Mamadou Diaby mhm. Gassama. Mhm. Oustaz Assane di jaajëfal ba Oustaz Assane. Euh, donc ci coordination bi saa su ne mu ñuy jàppale ci ci petit déj suñu invité yi.